mbokk yi ñu ngi noonu ñaari demi-finale ci wàllu poule A ak B Serigne Ndiaye moo génn poule A moo nekk tête euh, tête de liste moom moo génn ak quatre combats quatre am deuxième am deuxième bi génn ci poule B bi muy kii di Toubacouta poule B euh, kii di général Malika moo fa génn moom it aussi avec moom it quatre combats quatre quatre arbitre bi sifflé ndoo ñoom ñaar mu am deux deuxième bi ci poule B bi ñu ngi noonu diggante Toubacouta ak Serigne Ndiaye 2 jàppante nañu Toubacouta Serigne Ndiaye ñu ngay bëre Serigne Ndiaye na ko daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na Toubacouta Serigne Ndiaye 2 dem na final laa ilaaha illallah ndaysaan bu bari ndeysaan Géant génn na ndeysaan génn na moom Géant dafa gaañu ndeysaan dafa gaañu te nanguwul ñàkk bañ a bëre ndeysaan Géant bu Bargny génn na ñàkk na moom Géant bu Bargny ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 dem na final ak general bu Malika. ndeysaan Serigne Ndiaye de général bu Malika. Serigne Ndiaye de général ñoo finalu.